jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu topp fii ci Info 7 TV ba leen ak ni ñu koy defee saa su nekk fii ci Info 7 TV muy seen site bi nga xamante ni yéen ko tànn tàmmal ko seen bopp saa su ne nag ñuy dem ci askan bi fekk leen fa lu ne jox leen kàddu moo xam ci ku mën a doon ak fu mën a doon tey nag ñu fas yéene jox kàddu kenn koo xam ne ku ñu xam ne ci dëkk bi ku ñu ràññee mu doon ndaw yëngu ci wàllum politique moom la daal di fekk ci fi nga xam ne la nekk muy Moustapha Mesra ñu fas yéene waxtaan ak moom nag ci ponk yu fasanti ko ndax ne xam ne ne waxtaanu tey bile li gën a fees mooy politique ndax olof ma wax ne bu nekk la mu def la gémme la saañ bay xeeñ kon moom Moustapha Mesra mooy sunu gan tey fii ci Info 7 ñu fas yéene waxtaan ak moom nag lu jëm ci parti réew mi nga xam ne daal dina déclaré bu yàggul dara ne daal dina dakkal àndam ak kile di président Idriss Seck wéyal àndam ak ñii di coalition Benno Bokk Yaakaar fan la na ma jëm ak lan mooy avenir ak ci politique lépp nam nañu ko waxtaane ginnaaw bi ñu leen nuyoo yéen mbokk yi ñuy seetaan ci Info 7 TV dañu koy nuyu moom Moustapha Messere bàyyi ko mu nuyoo ñu koy seetaan Moustapha ñu ngi leen nuyu. ok jërëjëf maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di nuyu mbooleem ñuy bàyyi xel Info 7 di rafetlu bu baax liggéey bu am solo bi ñuy def sant bu baax ci fekk si gi ngeen ñu fekk si tey ci kër gi ngir nam seq ak ñun waxtaan. moo tax ñu ngi ñaan yàlla lépp luñ fi waxtaan rek muy njariñu réew mi ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal sunu borom may ko fan wu gudd tam ànd ko wér waaye noonu lañ koy ñaan la njabootug sëñ Touba gépp ak mbokki taalibe yëpp jërëjëf. jërëjëf sëñ Moustapha ñu nga doon ci parti bii di <coughs> réew mi ak Idriss Seck. Mm-hmm. ndax mën nañoo xam kañ la door. ban année ak ñaataat nga def ak moom ak lan moo war a nit Moustapha tey jii ànd ak Idriss Seck dugg ci gouvernement toog benn moment Idi génn mun na day génn ànd ak benn bokk yaakaar. waaw kay jërëjëf sama ànd ak Idriss Seck mi ngi commencé 2012 après élection 2012 yi rek deuxième tour yi bi ñu wootee ba pare ci la ànd ak Idriss Seck lu jiitu loolu nag Abdoulaye Wade laa daan jàppale ci politique jamonoy élection yooyu yi fi mas a jaar yëpp. élection yu mas a jaar ci Sénégal rek man Abdoulaye Wade laa mas di ci politique mais après deuxième tour yi nag ci laa ànd ak président Idrissa Seck di ko jàppale jàpp ko ci kàddoom jàpp ko yet assu ak coono yi nga xam ne yàgg na ko daj ci laaj réew mi te jotagu ci loolu rek moo ma posé woon ci moom beneen bi ci des mooy ñëw gi nga xam ne ñëwoon na ko Touba am yéene jébbal boppam sëñ Touba te mu baree bari loo xam ne da ko cee daloon te mu assumé woon ay responsabilités ngir ànd gi mu ànd ak sëñ Touba loolu it sotti la ma ci xolub taalibe ndax yu bëree bëri ci ay attaques ak ay menaces jugoon dem ci moom loolu jàpp naa 2019 la woon. ma ànd ak moom ci situation bu compliqué nag ndax yi traversé ci diggante bi dafa bëri coowul Xaadim Busoli nga xam ne situation bi ni mu demee woon ak Touba ñu ànd ak moom ci gëm-gëm tolloon foo xam ne benn bassin sax mënoo ko lal. responsable Idriss Seck toog ci ba mu fees mu doonoon lu compliqué naqaree jaay muy produit bu naqaroon a jaay ci dëkk bi ñu boole la ñu neex ak la ñu naqari di raxas bam set di ko présenté nit ñi di di di dem ak a ñëw. bi ñu jógee ci loolu après 2019 ñëw bàkk ak màkk traversé waat fi muy lu compliqué ba ay menaces jug ay attaques jug parce que ñu génn woon ko sax ci diine ji. ñun fii ñu nekkoon di Touba ñu campagne fi campagne bu am solo boo xam ne lañu ñu njëkkee mooy tournée départementale 14 commune yi ci département bi 16 communes yëpp ñu wër ko ba mu daj dem ci àll bi dem Mbàkke ñëw Touba campagne campagne bu métti boo xam ne joxuñu woon ay moyens. durant campagne bi sax toogu ci tooguñu ceeg moom amut lenn luñ gis loo xam ne ci moom la jóge ñëw ci ñun mais lépp boobu ñu ngi doxee comme principe 2019 nag bi ñu jógee ci élection yi jàpp naa ci histoire Sénégal mu gagné fi électoral boo xam ne kenn mësu koo gagné loolu grâce à ñi nga xam ne ay responsable lañ woon ci dëkk bi te def ci liggéey bu am solo ñu jigee ci élection yooyu nag man jour bi muy def déclaration di wax ne reconnaître président Macky dem Dakar euh, ak déclaration bi mu njëkkoon a def ak li mu wax lépp ñu toog ab diir remaniement am ñu dégg turam ci gouvernement bi dégg Yankhoba Diattara dégg Aly Sele Diop mu wax ne dugg na ci biir gouvernement bi parce que président Macky Sall daf ko tàllal loxo mu jël exemple ci soldat bi nga xam ne dafa war a jëm guerre am réewam soxla ak yu bëree bëri situation Covid bi ak yi ci nekkoon yëpp mu jël exemple ci yooyu yëpp ñu xam ne comme réew mi moo soxla nit ki nag bu dee da bëgg sam réew te réew mi soxla li nga war a njëkk def mooy taxawu sam réew d'abord ba pare doog tal parti politique ak leneen. ñu jàppale ko ci loolu nag bokk ci njëkk def déclaration ci territoire Sénégal ne àndoon nañoo ak Idrissa ci li mu wax mooy taxawu réew mi ba mu traversé ba mu génn ci situation bi nga def relance waat économique bi ñu ànd ceeg moom ci loolu. loolu waral sunu sóobu ci Benno Bokk Yaakaar di défendre régime bi ci télé yi ak rajo yi ma dem ci plateau yi fu ne ma dem fa léegi bi ñu demee ba 2024 jub si 2023 ñu dégg na dafa am position mais yëmut ci moom muy am position ay ministre ma ñëpp quitté. ma jàpp ne bu fekkee da ne réew mi moo tax a jóg jël exemple ci soldat bi jëm guerre tey la situation bi gën a critique ci réew mi gone yi ñu ngi jàmbat manifestation yi mi ngi am yu bëree bëri di ay situation yu difficile baykat yi taxaw di wax li ñuy wax ñeneen ak ñeneen ndaw ñii di taxaw di kaas am xëy nga mën a quitter loolu lépp ta nga ne woon réew mi moo la tax a ngir taxawal base politique ak taxawal sa campagne électorale pour 2024 dañuy jàpp ne kon leneen moo ko tax a jóg mais mu defaat lu gën a garaaw Aly ministre de l'élevage ku ne xam na ne élevage ak tabaski gii ñu jub si situation bi fi mu toll ñu jàpp na li ñu waroon a yëg ci moom mooy taxawu tabaski gi préparation ba nit ñi mën a am ay xar yu jàppandi mais Ali Sall quitté bi ngir lan fekk Idriss Seck ci parti politique am Yankhoba Diattara sport fi ko Matar Ba indi woon situation bi ak fi mu toll woon Macky Sall dàq Matar Ba indi Yankhoba jatara jël Yankhoba Diattara teg ko fii Matar Ba bi mu dem ñu qualifié coupe d' Afrique ñu ñu gagné coupe d' Afrique qualifié coupe de monde yu bëree bëri am ci biir réew mi ñëpp naan Matar Ba waru fi woon a jóge ñu jox ma Yankhoba Diattara ministère boobu. benn suur ñëwit moom mu démissionné ngir lan Idrissa Seck démissionné na ses cest dire que da nga xam ne ko ñooñu li leen taxoon a jóg mooy du gouvernement bi waaye li leen tax a jóg mooy parti politique parce que bi ñuy dem ñoom dañoo jug lancé wu ci parti bàyyi réew mu dem fële léegi nag bàyyi ak président Macky Sall situation bi nekk lu compliqué ci moom ñu ne ñu ne nag dugg bee génn bi diggante bi ñu toog defendre président Macky Sall défendre coalition Benno Bokk Yaakaar suñ génne demaat ci askan wi di wax ak ñoom lan lañ leen di wax stand bu yàgg bi Idriss Seck stand by te lu tutoon defutoon dara massifiewul woon dara ba ñàkk Thiès local ñàkk ko législatif suñ jugaatee demaat ci askan woowu di leen wax ne ne président Macky Sall mi ñu leen doon wax baaxut kat léegi moom ba baax na kat baaxul léegi Idriss Seck mi moo fi nekk ñu xalaat ne dugg bee génn bi bu ci naree am li ñuy njëkk def mooy démissionné ci parti réew mi mais nag bàyyiwun politique nekkuñu aussi it benn bokk yaakaar bi ñu démissionné dañoo salé suñuy mbooleem activité politique fi ne nekkuñu ci benn coalition dañoo salé suñu activité politique. waaw di jàppale benn bokk yaakaar. ba tey jàppale wuñ benn bokk yaakaar. kon léegi seen destination. waaw suñu destination mooy. suñu destination mooy mooy dañoo dañoo def stand by ci yemale ko ci base bi waxtaan ak militants yi ak responsables yi bu ñu demee ba la yi nga xam ne ñooy xëccoo en 2024 ñu publier ñëpp leer ñu xam ne diw ak diw mooy candidat bu boobaa danañ xool ci ñooñu ñi kan lañ ci war a àndal ak kan moo ci gën ci askan wi ku ci gën ci suñu département ku ci gën ci suñu commune tekkiwul ne nag dañuy ànd ak benn bokk yaakaar ni yeewi ni wàllu déedéet dàq ñoo ànd ak benn coalition mais cest dire que ne bu ñu ànd ak coalition it na fekk mooy coalition boo xam ne tegal nañu programme bu leer na lii kat baax na ci département bi baax na ci commune bi mhm. boo xamante ni nag ko war ci yan anam ngeen war a doxee mhm. d'ici 2024 ba nga xam ne bu ñëwee keneen koo xam ne gis ngeen ne kii bu ngeen ànd ak moom si liggéey xam naa kuy dem ci coalition di nga yóbbu sa programme mhm. moom dina tegal programme mais di nga mhm. toog rek di waxtaan seen biir fas yéene xaar 2024 waaw lu jiitu lu jiitu ñuy quitté sax ñi ngi woon xalaat ci mouvement bi mais dañ ci am ay experts yu ñu ciy waxal yoo xam ne dañ ñoo bëgg a tànnal tur turu national lay doon wu yaatu woo xam ne nit ñi ak sénégalais yëpp dañ ciy gis seen bopp ndax bëgg ñoo créer mouvement boo xam ne day yem ci dëkk bi soit mouvement bu yem ci département bi mais dañoo bëgg mu doon mouvement boo xam law ci àdduna bépp bokk ci bànqaas yi gën a mag loolu nag boo ko bëggee def bëgg mu am benn dayo bi da ciy waxtaan ak ñi nga xam ne ñii ci biir réew mi lay nekk ñi nekk ñu ci bitim réew ba déggoo ak ñoom consensus am ci ne ñun kat tur bu buñ ko defee dana gën a mën a yaatu ñu taxawal loolu mais am na ay experts yoo xam ne ñu ngi ñuy proposer ay tur mais suwaaguñ ne bii tur lañ bëgg a tudde mouvement bi mais ma malheureusement nag am na ñoo xam ne waxtaan nañoo ak ñoom ba déggoog ñoom ci kawi kàddu ñoo xam ne ay coordonnateur lañ woon nekkoon ci parti réew mi nekk ci yeneen parti politique d'accord nañoo ak ñun ci slogan ñu jël ngir dem ak suñu bopp dem ak suñu bopp jooju nag li tax bëgguñu ko yàkkamti mooy dañuy bañ mu mel na comme yenn mouvement yi ne bërit benn parti politique jël la ray la nga dee comme li nga xam ne moo ñu naqari ci parti réew mi moo tax dañoo bëgg waxtaan ci suñu ak militants yi waxtaan ak responsable yi ba suudewu doon benn bloc bu defee bu ñu génnee bientôt danañ présenter Sénégalais yi mouvement boo xam ne jàpp naa ne bu mouvement bu mel noonu amee ci réew mi it du doon loo xam ne lu bari lay doon mais nag bëgguñu ko yàkkamti taf taf dem jaayi suñu bopp dugg benn bokk yaakaar ni wàllu ni yeewi nangam ak nangam déedéet dañoo bëgg a def loo xam ne keneen ku ñuy àndalati lañ lay indil daf lay amal njariñ mais yow ma ñu jàppale it da amal njariñ suñu askan mm-hmm. Mm-hmm. loolu xam nga politique boo xoolee d'ici 2024 mm-hmm. dem candidat tax wala bu ñu ko ndax fii ak 2024 parce que février lañ war a amal élection yi boo demee 2024 rek dootoo tal taxoon mouvement mhm. doo tal leneen day fekk mhm. lépp sotti mhm. ndax diggante bi bala ngeen di génn yéen it jotoon ngeen defar seen mbir nga xam ne da di génn tey rek suba ngeen déclaré am nañ ci xam nga xam nga tasub sëy takkub sëy kenn du ko def idda sax daa am ci sëy du caagi na da tas tey sëyi tey am na diggante boo xam dañ la ko may boo tasee ba pare ci nga war a toog ba sa idda jeex nga doog amaat beneen borom kër du caagi ne dañuy génn tey. non non du caagi ne. si ne idda waaw bu fekkente ne dañuy dañuy bàyyi parti tey duggaat ci parti tey kañuy waxal du ñu dégg dana ne ñii bàyyiwuñu woon. dafay mel na kon dañoo éliminer woon patrie mi ku bëgg a séparer ak ñoom te loolu taxuñoo jóg dañoo am ay ambition 2024 ambition yéen am nag. du caagi ne dañuy jógee ci parti Rewmi ne bërit na ñi ngi benn Bokk Yaakaar wala ñi ngi yeewu wala ñi ngi wàll wala ñi ngi nangam depuis bi ñu defee déclaration démissionnaire c'est la suñu activité politique ba naga ni ñi nga xam ne ay parti politique lañ desul kenn ah ñëpp a ngi woote pour def négociation mais li ñuy li tax ñu ne la ñuy instant mooy lu ñëpp di woote ndoo di wax dañ ko dul yàkkamti mais saa bu ñu génnee bientôt du ma deux mois bu ñu génnee danañ présenter Sénégalais yi ban mouvement lañ taxawal ak kan la ñuy àndal ci politique parce que engagement boobu xas nañ ko am ñun bu ñu nee weex na dañ naan weex na bu ñu nee ñuul na yi dañ naan ñuul na képp koo xam ne jël nañ engagement di ànd ak yow daal lay ñagasal ànd booba wala la nga xam ne mooy trahir ànd booba du jóge ci ñun parce que jàppale opposant moo gën a métti 2012 ba ba ba ku ko nekk ci président Idriss Seck lekkoo dërëmam gisoo ko déggoo ko téléphone seeti wu defut ci relation boobu nga mën a nekk foofu jàpp naa ne boo jógee di ànd ak keneen it war naa mën a xam ne kii di ñëw ay conviction moo fi indi leen. kon génn gi ngay waxee dafa mel ni donte ka àndoon na Idi ci principe ngëm-ngëm ci politique am doxalinam depuis 2012 ba na 10 ans. waaw tey koy àndal parce que boo xoolee diggante ba 2019 wéy di opposé wu gouvernement bi mhm. di dal ci kaw nguur gi di nga xam ne doxul ngeen di ko souligner mhm. tey mu dugg ci mois de mars mhm. ñu dugg ci ndorteel 2023 idi génn yéen ngeen reste doyul ngeen ne dal léegi reste gi sax du wóor dañuy quitté bàyyi idi léegi kon dafa mel ni yéen ànd ngeen ànd ak idi du principe du ngëm-ngëm du ci politique wala da doyal dëgg-dëgg carrément ci jëmm idi wala lan moo leen naqari dëgg-dëgg ba non xam nga ñun bi ñu nekkee ci biir parti bi xëy na officiel la ñuy doog a def barki démb ne bàyyi nañ Idrissa mais sele woon nañ suñu activité lu yàgg ci biir parti réew mi parce que li ñu gëmoon mooy structure parti dafa am na muy doxee mooy lépp dañ ko war a toog di ko waxtaanee bànqaasi parti bi di ko yëg ñu xam ne parti bi mu ngi dund. jàpp naa ne journaliste nga depuis 2012 depuis 2019 ba fi may waxe ak yow amul benn ndaje boo xam ne parti réew moo ko def di massifier baasam nga dem fa taxaw fa. kon parti du fonctionné noonu li ñu bëggoon mooy bu fekkente ne dugg na ci gouvernement bi mu bañ a rey parti bi parce que même moom bu amul ay ambition ñun dañoo am ambition massification bu fekkonte ne am na tey buy génn ci parti bi dana am minimum benn appareil bu mu téyee boo xam ne appareil politique am la mais fépp la ko réer ci territoire du Sénégal ñu ne nag ndaw ñi nga xam ne dañoo nekk ci département yi ndaw ñi nekk ci communes yi def seen sacrifice yëpp ci benn parti politique bientôt ñu dem ba benn jour parti booba dee déggatoo ko fenn amul benn programme ñu dem local amuñu lu dul benn maire ci territoire du Sénégal dem législatif amuñu lu dul benn député ci territoire Sénégal te liste nationale la jàlle c'est-à-dire que ne parti boobu même buñ gëmalee Idriss na ko parti baa ngi dox dañ koy nax léegi nag ñun ndaw ñi nga xam ne ñoo taxaw nag bëgg a samp dara buñ jógee ni ñuy def mooy territoire Sénégal yooyu def tournée boo xam ne tournée départementale lay doon tournée régionale tournée nationale dem ci tous les tous les euh, responsables yi nga xam ñoo nekkoon ci département yi muy ay ndaw ñu ci bari d'ailleurs ñi ngi contacté ak ñoom parce que bi ñuy génn keroog di def départ di génn huit coordinateurs ñoo taxaw ànd ak ñoom ci dynamique bi. am na ñeneen ñoo xam ne après woo nañ ñu tënk nañu ñoom ba ñoo bokk même ay groupe whatsapp yoo xam ne dañ ciy waxtaan c'est-à-dire que li ñu ci jul mooy tënk loo xam ne bu ñu jug du dem duñ ko bàyyee ñaari nit ak ñett dem. day doon ay banqaas yoo xam ne ay statut lay doon coordinateur sàngam ak ni coordinateur sàngam mi kii nangam la yoroon ci parti bi direction bi nangam la fi yoroon ñooñu ñooy gën taxawal loo xam ne duñ ko jël jaay ko Macky Sall duñ ko jaay Ousmane Sonko duñ ko jaay Idriss dañ koy téyal seen bopp keneen ku ñu àndal ñu xam ne ndaw ñi kat réew mi moo leen tax a jóg am nañ ay ambition pour kon pour def seen activité politique. léegi yéen bi nga xam ne li ma déggee li ngay expliqué mbir mi. Mhm. dafa bi ngeen am mooy. 2024 mouvement boo xamante ni daal da ngeen a ut ngeen ko seetlee parewu leen pour dem élection xool comme nii parce que boo déggee ni nga wax boobu léegi da ngeen tudd benn bokk yaakaar. Ah, waaw waaw tey jii ñu gis yaakaaroo ànd ngeen àndoon ak gouvernement bi moo leen perte loo ngeen am benn maire Sénégal c'est de 500 nangam maire lu de 165 député ngeen am ci benn yaakaaroo loolu la ndax. boo ah, xoolee fu mel ni maanaam boo dé. boo déggee ma lay wax. mooy sa ni mu duggee ci gouvernement Macky Sall bi ci régime bi duggin bi moom moo baaxut parce que bu ñu jógee ci élection 2019 ba période bi mu def déclaration. waaw moom laa lay joxe moom laay wax ne dama ne boo diggee boo duggee dékkee ni mu duggee mooy nit ñu campagne woon sacrifier rayir seen bopp Touba nga gagné territoire bépp département Mbacké bi nga gagné ko largement Idrissa moom a mën a taxaw nañu 15 a maa ngi waxtaan ak Macky Sall. te boo xoolee date bi mu lay wax ak 15 mois dafa dugg ci campagne électorale bi nga doon campagne di rey sa bopp yow. c'est-à-dire ne duggun boobu négociation boobu même bu fekkonte ne base bi nga yoroon muy Thiès gi mu dëkk juddoo fa te mu ne woon boo ko perte bàyyi politique waratoon gëm ne dana mën a continuer di maintenir waa Thiès. léegi nag bu ñu demee ba Thiès sanctionné ko local sanctionné ko législatif kooku jóg samp am ndëndëm tey na dafa bëgg a dem campagne élection 2024 léegi bëgg a sacrifier waat ndaw ñi ak jigéen ñi nga xam ne ñoo topp ci moom ñun benn benn benn taxawaay rek lañ bëgg am mooy ndaw ñi nga xam ne yàgg nañoo Cheikh Idriss Seck yàgg nañ ko sonnal ñu leen di jox comme xalaat mooy ñu xam ne parti booba même bu fekkonte ne bëgg nañ mu dem du ci jamono yi ñu toll. parce que li mu traversé lépp te di mun mënatuñ ci dara ñoom ndaw ñi dañoo war a am ay ambition 2024 boo déggee mën naa la ñun tekkiwul na ñun mën nañoo dem suñu mouvement boo xam dafay dem mais benn mouvement soutien bu mën a taxaw Sénégal dem mel ni yow dong amul ci Sénégal la ngay mën a def da wut ñoo lëkkalool ñoo xam ne da xam nan ngeen di tege seen stratégie ba mën a continuer ci participer ci élection yi. kon man jàpp naa ne parce que xam nga li tax ma jàpp lool li tax ma jàpp date ne ci lay bàyyi politique bu amee 63 la waxoon ci lay bàyyi politique fi mu ne mi ngi ci 63 bu perte Thiès la waxoon ci lay bàyyi politique ñett yëpp dafa daje ci 2023 bi. 2022 la waxoon 2023 bi agsi na 2024 waratoon am ambition am na yeneen kàngam yu nekk ci biir parti bi Yankoba Diatara nga fa Ali Sala Diop nga fa ñeneen ak ñeneen ña fa ay ndaw ñoo xam ne am nañ am nañ minimum base bu ñu demee ba tey bi ñu nee dugg na ci gouvernement bi Abdourahmane Diouf dem na Déthié Fall dem na tey mu doon ñoo xam ne créé nañ minimum ay parti politique yoo xam ne bokk nañ ci opposition bi gën a am taxawaay gën a am gëdd ci réew mi xam nga ne fi mu boo tegoon Déthié Fall ni teg Idriss Seck ni Déthié Fall moo ëpp. popularité que Idriss Seck. nit nag boo demee ba perte sa popularité jàpp naan beneen taxawaay nga war am bu taxaw di participer ci kanamu Sénégalais naan damaa soxla réew mi li mu waroon def nag mooy xool ndaw ñi may leen sens ne leen naa nekk seen ginnaaw jàpp leen pour que ngeen mën a dem mais ndaw loo xam parti réew mi yow fi mu nekk nii may wax yow mu nekk ci biir parti ko léegi nag dangay nekk ci biir parti boo xam doo ay ambition doo am ay ambition amoo xalaat kenn du wax kenn ni tey wax mooy jël décision mooy buur bi li muy def moom ñëpp def ndaw ñi nga xam ne bëgg nañ dara. démocratie amu fa ni ma dégg. non amu fa parce que démocratie mooy boo dee dugg ci mbir da nga koy waxtaane loolu mooy démocratie. mais noonu bi muy dugg ci gouvernement bi. waaw waaw Babacar Mar ñëpp xam nañ ko mu doon koo xam ne ku ñëpp ràññee la même jour déclaré ne Idy dugg ñu toog ngoon Idy def conférence presse dem ci. Babacar Mar sax dafa sori man nga ne ku nekk ci parti bi mais xariti Idrissa Seck boppam yi nga xam ne ñoom lay ànd guddeeg bëccëg am na ñoo xam ne xamuñu ne dugg ci gouvernement bi ñu ci bëree bëri loolu nag du démocratie léegi nag bu fekkonte dafa xool secrétariat national mu lancé leen message boobu diglu sax boog seen xalaat ne lu ngeen ci xalaat bu boobaa ñoom am nañ xalaat bi muy génn ci gouvernement mu doon lu mu waxtaane mais toog Thiès di kal di kàll toog Dakar di kàll di kàll ba mu yàgg nga xëy xëy na rosen na damay démissionné samay ministre nañ génn man damay génn mais loolu lan lan la pour lan li mu waxoon ne situation réew moo taxoon mu lépp dafa normal kon léegi kon yéen daal durant dix ans yi ngeen ànd ak Idy yëpp daal daa bëgg a nax saay noonu daal ginnaaw xeex bi ngeen xeex doon ay ndaw tey actuellement ñu si ñuy génn révolté wu boo xool ñu bëri seen as amagul 40 amatul amagul 40 ans waaw waaw tey bay mm-hmm. Idrissa Seck du doon mm-hmm. loo xam ne waaw dañ leen seede yéen ba ëllëg seen ambition ci politique non xam nga Idrissa ñu ko bàyyi ñëpp ay jeune lañ mag ñi amatuñu ambition soo fa demee da nga fay fekk as kër Gueye dafa wax ne bu Idy ne weex na mën a weex na bu ne xonq na mën a xonq na kooku amul ambition mag ñooñu nag ñoo ko dar naan ko mën naa nekk boo demee sénégalais yi danañ la fal yow la ñu wóolu ba nëgëni te ñun ñu dégg li sénégalais yi di wax fukki sénégalais yoo toogal boo nee Idriss Seck juróom-ñeent yëpp aw yat la ñu dagg ñun ñu doon ay ndaw am ambition boo xam ne romb na 2024 dañu toog sacrifier ko ci benn mag moo xam ne dem na retraite programme politique am jeex na te ñun ñu war a jug pour koo xam ne ëllëg ku mën a ñëw ci réew mi mën nañoo liggéey wala ñu dem suñ suñ bopp cest à loolu moo tax ñu ne nañu créer suñu yëfi bopp dem liggéeyi Idrissa ba mu ci toll ci Ablaye Wade daf doon liggéey dem yëf guti yëfi boppam ñun ñu jàpp na ñu ne war nañu am suñu yëfi bopp dem liggéey noonu la Macky Sall defoon ba jot ci réew mi noonu la keneen ak keneen def ba jot ci réew mi bëri moom dañoo jàpp lii ngeen naan stand yëpp daal yàggal kii mais daal da di dellu rek ci Macky Sall waaw mais Macky Sall buñ doon dem loolu du ump kenn buñ dégg woon ak Macky Sall nañ defe na génn nañ noonu la ñu officiel suñu lépp ne ñi ngi ànd ak Macky Sall argumenté li tax ñuy ànd ak moom parce que Macky Sall xanaa du ne ñëw leen ànd ak man rek ñu ne ko waaw jox ñu lii wala nangam négocier par rapport suñu moyen suñu suñu programme bopp am na ay nit ñun àndal am nañ dëkk bu dëkk am nañ département buñ dëkk am nañ région buñ dëkk bu boobaa dañuy négocier loo xam ne minimum buñ ci dee wax dañ ne ah lii kat dëkk bi ñàkkoon na ko wala responsable nangam ak nangam moo fexe ba mu am négociation boobu boobaa day doon loo xam lu général lay doon mais duñ négocier comme négociation politique nañ ma jox poste ma dugg fee nañ ma jox ay privilèges dem naa toog ànd ak régime boo xam ne régime boo xam ne yaa ngi jëm ay élection xam nga da nga gañam doo gañe nga bëgg cee seeyal sa bopp rey sa bopp xanaa négociation bi ñun duñ ci. ñu bëri noo gis bi nga dekkee benn bokk yaakaar sa relation ak président jege woon ba mu recevoir la palais. Mhm. ba am wax yu bëri ci jug naan Moustapha moom lan mooy relation ak président tey boo demoon laaj protocole palais la fa nekk ci ay demande pour gis président président bëri nañ moom mu am possibilité pour mën a gis président mu recevoir ko ñu waxtaan ñii naan jox na ko xaalis avant élection yi ak ni mu ne tey ñu bëri dañ jàpp ne yéen da ngeen toog nii rek mais daal yéen ak président moom réeréw leen d'ici quelques jours moom day yàgg rek mais fa ngeen jëmaat maanaam man bi ma ñëwee di jàppale président Macky Sall jàpp naa ne mënoo maa génnal ndaw lu am fit dem ci plateau national yi toog di défendre président Macky Sall lu jafe la ma sacrifié ci loolu du salaire bu ma jox du oto bu ma jox du xaalis bu ma jox barke alxuraan te ñu bari dañoo jàpp ne yii Macky Sall ameel na ma ko jox na ma ko ba pare période bi may traversé ak waa Pastef yeeg nangam ak nangam seen i saaga ak seeni i yegg ba attaqué fii sama bund ko toj sama oto toj sama pare-brise oto fii ci bund kër gi kër gii nga ñëw tey sacrifice boobu ma def ak li ma traversé du lum ma jox du lum ma wax du lum ma dikk mais man maay dugge noo xam ne ci mbir bu ma xasee bu dugg engagement boobu laa ciy duggee. plateau télé bi ma njëkk dem bi ma tàggoo sama nit ne leen damay dem palaatoo Ndoumbelane damaa war a dem man lañ fa yebal dañ ne woon bul dem. mais ma gëm ne damaa war a dem. ñu génnewaat. waaw attaqué président di la koy tàggee. xam nga xam nga loolu xam nga loolu xam nga moom loolu lu ma ci jublu. wallaay ñu ma waaree Idrissa Seck ma ko teg parce que moo ne ma Macky Sall wii soom yëgul jam ñaajo kàddoom wérut tegale yu bari wax ma ko. xëy xëy ne ma kii ma la doon wax kàddoom wérut yëgul jam ñaajo mooy sama patron man. jël exemple ci soldat bi jëm guerre bu am réewum soxlaa nu muy def situation Covid bi nekk fi ma jël engagement ci loolu ba dem di défendre loolu nu ma mën a baaxee la loolu di ko baaxal mu xëy na mën nañ génnaat question bi may posé Sénégal bu ma génnee lu ma leen wax. man bi may génn di dem te défendre président Macky Sall ñi nga xam ne ñoo bokkoon dekkal ngor ànd ak président Macky ba muy sos APR période boobu wuñ ko woon. boobu la situation bi gën a difficile. sax fii kenn benn responsable ci dëkk bi boo dégg mu naan la mi ngi dem ci rajo wala télé amatul budul man. man man naa ko seet. waaw bu dul man ngay dégg mu ne Moustapha Messere kat moo war dem émission sangam ak sangam pourtant ñi nekk ci parti bi lekk privilège Macky ñi nekk ay HCC ñi nekk ay DC ñi nekk ay ministre ñi nekk nangam. amul kenn ku ci mas a jox bon cinq litres ne ma maa la participer ci gasoil bi. parce que damaa xam li ma ci doon daj. ci xam nga xam ñu jàpp ne ak ci gis rek ñu gis la fu mel ni TFM gis la lu melaat ñu jàpp ne daal Moustapha Ah, non non non non du problème na xam nga nit ñi boo génnee di wax yow nit boolewu maag yow yaakaar na da ngaa jàpp ne amal naa la njëriñ nga woo ma ci sa émission. télévision yi nag noonu la demee dañuy jàpp ne sujet bii ñu war a waxtaanee kat diw mi buñ ko ci woon dana placé pour mën ci waxtaane ñu woo la mais du caaga nit di day nekk sa ginnaaw wala di la fay naan la demal waxi wala nangam jàpp naa man romb naa foofu ci politique. mais période bi may dem di défendre Macky ay ministre am ak i DSM am naa ci relation ah, am naa ci ay xarit. ñoo xam ne même bu dul woon politique relation bi dama koy continuer serré mais du caagi nag ñooñu ñoo lay jël mobiliser la yóbbu la ci plateau jox la xaalis wala nangam ak nangam pourtant mënoon naa ne lekkuma benn privilège am du dara am. bu ñu ne maa demal dama naan ma. xam nga un boo xam ne boo doon xool baasam ci côté politique taxul ko demee noonu. loolu mhm. engagement am la am mu xëy nga koy gis yenn bërëb yoo xam ne am na ñu am base politique am benn engagement bi te yegguñu fa da jàpp ne mbir yi. xam nga xam nga li ñu tuddee base politique moom modul base xam nga politique lan la nga mën a convaincre nit wax ko mu dégg la. loolu mooy première base politique bu dee mobilisation bu ñu nee tey APR mooy dajale fii mbooloo mi nga gis APR ñooy wuyu si Pastef ñooy wuyu si keneen ñooy wuyu si keneen loolu du base parce que nit ñi boo leen mobiliser def leen ci kàddu ñëw mais discours ban ngay wax ak nit ñi ba ba wax ak ñoom ñu dégg la. loolu moo ma yóbbu woon TFM moo ma yóbbu euh, feneen ak feneen émission boo man dem li may mën a wax mooy lii kat la leen régime bi defal. bi ngeen di fal da ngeen a fal ko xam da leen di liggéeyal opposition Sénégal ba maase ne bilan moom am na ay infrastructure nangu nañ ko parce que kuy jug di dem ci réew mi fooy dem la nga fay fekk Macky ko fa def bu dee tali ca ngay jaar bu dee courant bu la nangam ak nangam mu indi PUDC programme d'urgence développement communautaire àll bi tey lañ doon wax mooy ay kaw kaw lañ mu régler situation àll bi régler leen régler loolu da a argumenté ne bii nag opposant la boo xam radical la boo ne lii nangam ñun nangam Macky Sall léegi nag su ma demee ba mu leer ma ne kat Idrissa Seck mi ma engagé wu di jël engagement bii ngir moom siège bee mu toog dëgër mu damm siège bi sànni fële dama naan ko doo ma gën a am fula siège bu may toog maa fa teg sama bopp doo fa teg. kon dafa mel na bëgg a dëggal li gars yi naan Idrissa Seck 2024 moom daf fi ñëw comme li Madické Niang defe woon ci élection yi rajax réew mi pare bàyyi politique. man man yaakaar bi ma am parrainage yi bu ñu ko tegee coon Idriss du jàll parrainage. loolu moom bi ma li ma li ma dégg ci département Mbacké bi man ak ba mu joxee ndigal dem leen def recensement yi. demuñ de benn parti baa ngi des ba léegi. waaw déggu man la li ma dégg man nga xam ne ñi nekk ci parti bi ñoo ma koy wax. parrainage bu ñu ko tegee ci Idriss du jàll parrainage damaa jël sax dem élection mais parrainage mënu jàll parce bi ñi may dégganteel xam naa leen te ñi may dégganteel du même pour ay coordinateur lañ ay responsable yu mag ñoo xam ne bi ñu leen joxee fiis di leen rempli loo xam nga yéen fiis lañ rempli DER bi maire yi doon bindu lañ jël rek jàll ci seen salle comme toog nii rempli ba neex ne la am ana responsable yooyu ana nit ñooña Idrissa Konté ci loolu ne bu génne mën naa dem pare na sax bu jaaree ci yoon du ah, moom nee moom mooy chef de l'opposition ndax élection yi passé a tontu si yenn kàddu mais moom daal ba tey li gëm mooy. ah xam moom lim gëm nag lim gëm nag mën nañ ko ko nangu parce que deux mille vingt deux mille dix neuf Macky moo am vingt cinq pour cent moom moo am vingt pour cent. Macky la jiitu moom mooy topp foofu la jëlee statut chef de présentel kenn fii mu toog 58 pour cent moom moom 30 mooy deuxième Ousmane Sonko ñëw ci 15 le reste la des kon daa seetlu l'opposition Sénégal yi ñoo ko jox kon nag loolu. waaw ah, mais loolu du problème na jël lépp na Idrissa ramassé lépp jël coow li mi ngi ci bu waree wàcc kanamu Sénégalais yi da ak ñoom. mais mais lépp na ko léegi nag dañuy dugg ci actualité bi tey temps yi gis nañ coow li ci dëkk bi bëri na dialogue bi dialogue bi président woote en tant que yéen ñi nga xam ne leen àndoon ak Idi Idi moom génn na dem ndax dana dem dialogue bi loolu lu ñu war a teel la waaye yéen en ñoo xam ne ànd ngeen lu mu dee dee ay quelques mois ak benn bokk yaakaar woote président Macky Sall fi réew mi toll nu ngeen ko gisee. waaw dialogue bi day ci benn côté d'accord naa ci parce que am réew moom fu mu mën a toll. dañ ko war a teg ci taabal ji waxtaanee ko réew yu bare ngi tàkk waaye fa ñu mujj mooy teg ko ci taabal ñu ko séq waxtaanee ko lan lañuy ñuy nan la ñuy demee ci ay élection waxtaane fichier électoral bi pétrole bi ak gaz bi nangam ak nangam loolu la ñuy dialogue kenn wërtu nekk ci réew mi réew tax laa jug ñu woola ci loolu te doo dem du Macky Sall la dialogue li ñu bokk la ñuy dialogue kon képp ku ñu woo ngay ab opposant tam leen réew mi moo la tax a jug loolu da war a dem participer ci dialogue ban laa d'accordut nañ toog dialogue tëju ci néeg bii ngir éliminer Ousmane Sonko dafa am àq ak yelleef donte contre naa ko lool mais minimum am na benn un wala cinq pour cent bu ko topp boo xam ne ay sénégalais dañ leen war a jox àq ci ñooñ ci dialogue booba tey bu Ousmane Sonko tooñee bu mu feeñ ci dialogue bu tooñut bu mu feeñ ci dialogue parce que dialogue réew mi lijjantiwul loolu justice dafa am ci réew mi moom it moo xam ne justice bi fi nekk même bu gañewul réew mi tey dañ ñooñu dafay continuer de gouverner. mu xam ne bu tooñee dafa am àq ci ki ki mu tooñ dafa am àq moom buñ ko tooñee noonu cest à man loolu laa gëm ci dialogue boo xam dafay nekk lu transparence ñi nga xamante ne bii ay adversaire politique lañ bu leen dialogue bi rey dañoo war a waxtaan loo xam ne consensus dina am que loolu mooy jàmmi réew mi ah. tey ji buñ demoon tëju tey Khalifa Sall ñëw Barthélémy Dias ñëw ñëpp position bépp ñëw ñu ne tënk nañ kat yéen ñi beneen leen bàyyi ngeen dem ne nañ rey Ousmane Sonko

Ousmane Sonko la te Ousmane Sonko moom dafa mel ni. waaw xam nga xam nga loolu Ousmane Sonko erreur bi mu ci def. mooy bu nu woowee ñu seq réew mi ne la ñëwee rek da ngay dem toog li ko naqaree ci biti lépp boobaa dana toog wax ko. est wax gi dana am saafara. waaw mais na dem responsabilité mooy dem toog. parce que fi mu nekk nii bu ñu dialogué ba pare moom mënatut a wax sénégalais yi amul légitimité jàkkaarloog sénégalais yi di wax ndax bi nga ko woowee dafa bañ. xalifa Sall nag bu ko neexee dem ne. xalifa Sall bu fa neexee dem waxtaanee amnistie dañ ko bàyyi mu libre dafa war a bokk ci élection loolu mooy yitteem. est-ce que di Karim Wade di ñëw wax loolu mooy yitteem Ousmane Sonko am na yitte na wax ko ñu teg ko ci table ji waxtaane ko. wax ñenn euh, analyse yi wax ko ñenn expert yi wax ko mooy ñu soppi article trent el vingt 29 yi nga xam ne ñoo tax ñi ñu condamné duñu éligible pour mën a dem élection ñu dindi ko ba ñooñu kuñ condamné te du la tere dem élection. est ce que moo gën a yomb di amnistie la. waaw déedéet ma ma maanaam ba tey ba tey xam nga xam nga ba tey ba kenn xamagut ba xam wuyu ma. nit ñi di ko wax. waaw xam nga xam nga proposition boobu proposition boobu ñoom. Macky du ko validé ci fañ toog di ko wax dañuy ñëw ci dialogue bi teg ko ci taabal ci ñu nangu ñoo dem loolu nan lay réglé woo. mel ni boo xoolee entretien bi ñu def ak Assane Gueye ci Korité bi daf na dialogue bi mën na durer semaine. waaw waxtaan nit ñi war a ñëw mouvement yi bëri parti politique yi société civile yow nga. mais pourtant lim naan la mën naa di lim naan la mën naa durer semaine ñi bëgg a bokk ci dialogue bi yëpp participer nañ ci ah. ñi bëggut a bokk rek ñooy dagg seen làmmiñ di wax mais ñi bëgg a bokk ñëpp participer nañ ci dialogue. 300 nangam parti ak ay mouvement. Ah, même bu dee même bu dee 1000 parti même bu dee 1000 parti même bu dee 1000 parti même bu dee 1000 parti deux jours rek kenn ku ne mën ngaa jot sa convocation ci sa téléphone yi technologie romb na foofu ndax da ngay participer wala doo participer lañ wax même bu dee 1000 parti deux jours rek mën ngaa jot sa convocation ñëw léegi boo dee dem li la yitteel ci doxinu réew mi da ngay dem teg ko ci table ji waxtaane ko. parti bu ci nekk xanaa da nga jël kàddu wala da nga wax sa xalaat buñ nee nangam ci courant bi nga ne nangam ji laa ci ci demee nga ne nangam ji laa ci xalaat problème Ousmane Sonko lii laa ci xalaat problème mu Khalifa laa ci xalaat problème mu keneen ak keneen lii laa ci xalaat consensus génnee ci loolu tey loolu la ñuy mais ñëwal ñu waxtaane réew mi nga ne doo dem yaakaaroo bu président waxoon publiquement wax ne xam nga man li ma gëm ci côté boobu Ousmane Ousmane Sonko bëgg gi mu bëgg réew mi bëgg gi mu bëgg réew mi dafa des xam nga lu tax mu des dañoo gaje fii coupe d'Afrique mu fekk ko poroxaan ñu ne ko ñëwal mu bañ opposition bépp ñëw ñëpp génn ciblé pour soutenir gaynde yi loolu du Macky Sall Coupe d'Afrique du Macky Sall gaynde yi ñaata ndam lañ fi am opposition bépp génn joxante loo xam ne lii ndamul Sénégal Ousmane Sonko contre loola nga woote ko tey ci dialogue mu contre ko yoon bi mu jël lañ ko mën a bàyyi mu dox ci te xam ne ci loolu rek la bëgg Ousmane Sonko bëggut a toog ci kaw taabal waxtaan ak Macky Sall te kenn mënta gouverner am réew ne damay séparé ak opposition bi opposition mënta gouverner dem ne day séparé ak ak régime bi Ousmane Sonko maire la. dafa gagné. tey jii waroon naa mën a waxtaan ak état bi tey jii fonds de dotation fonds de concours lan la ko état mën a jàppale pour mu tabaxu bu meeram mais nan bëgg a sacrifier aw nit tey jii ngir xeexal ko ab régime Ousmane Sonko du ko yëg Ziguinchor ñoo ko yëg moo la mën a jox exemple état ak euh, maanaam état ak ak ak communes yi mooy doom ju toll ci nàmp. mën a gut a dox mën a gut wax nga ne dama koy feral mu dem kooku sacrifié nga ko. benn commune d' arrondissement ci Sénégal mënut a tàqaloo ak régime bi. kon décentralisation bi mbaa amoon na njëriñ parce que dama demoon ba léegi maire bu ne am nga lii mooy sa prérogative nga mën a def lii mën a def te boo xoolee maire sax dañ naan décentralisation bi daa dem ba bloqué seen liggéey yu bëree bëri ndax da ngay am sa projet présenté ko état mu bloqué ko. déedéet est-ce maire yi ñi ngi am maire yi ñi ngi am ay procès ñi ngi am ay convention yu ñu signé ñi ngi am ay partenaires ci seen commune ñi bëgg a liggéey ah. ñoom ñëpp ñu ngi koy def Ousmane Sonko bu nekkee ci bërti bërti ci sous contrôle judiciaire moom ak état de justice moom ak justice bërti bërti joo xamante ne bi Ziguinchor ñoo ci am problème quand nag ni waroon naa fekk mu dem samp dara ñu ne Ousmane Sonko ma tabaxal Ziguinchor lii lii moo ko jëlee woon indi ko. bis bu set nga dégg ay barasaruus fay ñu suñu salaire dañoo war a yokkal bis bu set nga dégg loolu. moom de foofu waaw mais comme dégg xam nga lan lañ doon séntu ci moom xam nga lan lañ doon séntu ci moom comme dane woon moom bu ñëwee moo ëpp expérience ci bari jiite réew mi teg programme yu bari mais loolu warutoon am ci biir mairie. dix projets yoo xamante ni pour. ah non ah xam nga teg sa benn maquette. wan nit ñi ne lii laay def wala nangam defal pose première pierre liggéey bi commencé. président félicité na Barthélémy Dias ci liggéey bu am solo bu muy def ndakaaru ku ne na par rapport ni jële woon ndakaaru opposition bi jaar fee Macky Sall daa bëgg na félicité bëri si internet yi ñenn ñi jàpp ne Bart ñii sax di ko waar ndax da bëggutoon a gisee président tey ñu dajee mais li leen daje waaw li leen da waaw mondial économique économique ñu koy waxtaanee maire yi organisé daa waroon bokk ci forum boobu parce que maire la ok est-ce que amul ñu koy représenté non moom ci jëmmam moom lañ fal ci ay carte moo waroon a dem toog warut a délégué kenn bu nekkul ci réew mi nag sañ naa délégué premier adjoint au maire mais yow leer nañ la tey jii yaa ngi ci réew mi yaa ngi dox say activité fu ne yaa ngi fay dugg ñëwal ñu waxtaanee réew mi. maanaam ñoo xam ne nii ñoom ñooy yor session économique ci kiyam ci mairie. kon kon xam naa maire dafa amul ñu yor session économique xanaa. ah xam nga maire moom mën ta ñàkk a teew parce que moom dafa bokk si ñi nga xam ne ah. ñoom. li ma li ma xalifa gars naan waaw. ñeen ñi sax yaakaar ne dialogue bi daa parce que jàpp nañ ne Khalifa ak Barth moom d'accord nañ ci dialogue bi moom parce que buñ gisee. ah parce que Khalifa ak Barth dañoo xam li indi dialogue li dañoo xam lan moo mën a juddoo ci ab dialogue moo tax bi ñu leen wooyee ñu dem président de la république ñëw leen ñu toog waxtaanee réew mi boo waxee mu dégg la boo waxee nga dégg ko loolu problème mën na ci bañ am du yàgg ba mu toog tour de table ak Ousmane Sonko ñu fekk Ousmane Sonko yeew ko yóbbu ci kaso bi xalaatam la am daf koy wax consensus bu juddoo foofu loolu jaanam wàcc na gis nga lii muy teel teel di tiire ci àll bu demoon toog ak Macky Sall teg ko ci taabal ji adduna sépp xam ne point yi la teg ak Macky Sall ci lay am légitimité ka bu demut ci dialogue bi ma ne daal bi dafa mel ni gars yi di bëgg mooy Ousmane Sonko moo ci ëpp mais damaa damaa bëgg bu dee xeex di xeexloo gone yi di manifester di nangam pour ñu xam ne jikkoy patriotisme mi ngi ci moom buñ nekkaa ñu waxtaan réew mi bu ko ci kenn jiitu. même bu fekkee am na jafe-jafe ak Macky Sall buñ nekkoon nañ waxtaanee réew mi Macky Sall moom réew mi est-ce que dañoo jàppoo ne wolof naan ni nga jàppoon baam li bëgg a bàyyi foogoo loolu moo tax moom it mu jàpp ko si garsa garsa ah, voilà voilà kon na dem ci moo ci pertagul uh-huh. parce que garsa garsa gi gañeegu ci dara wàllum yoon moom Ousmane moom sax atte woon nañu ko diggam ak Mame Mbaye Niang diggam ak Adji Sarr am na atte bu ci war a am Mame Mbaye Niang moom dugaloon na recours ne moom d'accordul ci atte bi ndax liñ amande waa ji dafa néew sax naan Ousmane dañ ko war a tëj mois mu ñàkk li nga xam ne mooy ay droits civiques am ba ku si mel ni yow dégg nañu si benn émission nga wax ne daal deux mois yi dafa ndaw. Mhm. léegi pourquoi deux na ko am nga dëgg si ki la tooñ yéen daal li yoon def daal dafa tuuti léegi dafa mel ni ñu bëri li ñu doon wax mooy Ousmane bu mu bokk daal moo gën a yitteel ñuy jàpp ne Macky Sall. waaw bi ma déggee mu wax barki démb day moom dëggal na samay wax ndax nee na d'accord ci ni ñu ba ne ay awakam déposé waat nañ moom Ousmane Sonko. moom daa d'accord ci liñ ko daan. waaw mais comme d'accord ci liñ ko daan rek. ba ne ñoom déposé waat nañ ngir def recours. mooy li ma doon wax maam may na dem defi recours am na sañ-sañu ne lii ñu daan Ousmane Sonko moom arrangé ko. amaan bi arrangé wu ko dafay def waat digluwaat justice. man ci loolu laa ci waaw. waaye yow da nga dem ba dañ ko war a daan sax six mois mu bañ a bokk. waxuma loolu de waxuma dama ne dama ne. damaa gëm ne Ousmane Sonko wërta participer ci ay élections xam nga lu tax man la gëm gëm waru ko participer. damaa xam ne dossier viole ak ni mu toll ñaata sénégalais ñoo ñoo nekk ci biir kaso yi tey Ousmane Sonko da leen gën. ñaata nit lañ jiiñ viol tentative de viol yow da doon essayer pour def viol ñaata nit lañ ci accusé ñu nekk ci biir kaso bi. situation bi fii mu fi def ay menaces li fi woote yegg ba jàkkaarloog askanu Sénégal naan président Macky damay jël bakkanam wala mu jël sama bakkan lu toll ni président de la république. lim nekkee su ko bawul benn mu jël sama bakkan wala ma jël mais lu toll ne président lu toll ne président de la république waaw déglu ma xam nga lu toll ne président de la république nga dem ba di ko attaqué bay wax ne damay jël bakkanam est-ce xam moom président la attaqué wala xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga Ousmane Sonko moom moo wax ne man du ma wax ma président ma Sall fu ne Macky Sall rek président bi la ciblé ak li nga xam ne woote na ko fi te mu indi trouble à l'ordre public saaga institution yi nga xam ne ñoo fi nekk aw nitam di saaga ba xalifa général mën a taxaw ne maa ngi wax waaye bu ma paree danañ ma saaga nañ ma saaga ndey nañ ma saaga baay Cheikh Mahi Niass jàpp naa ne bu ñu demee ba ay xalifa généraux di wax ne bu ñu waxee gone yi danañ leen saaga gone yooyu boo leen identifié woon ñëpp ci parti am lañ bokk. loolu jar na sax moom jàpp Ousmane sonk tas parti politique war a exister parce que loolu histoire. saag yi ñu gis muy ci yeneen côté yi yow yow kan nga dégg muy saaga kan nga dégg mu bokk kan nga dégg actuellement ni mu bokk ci Macky Sall génn di saaga ay kilifa diine fii ci biir réew mi. mais yi moom xam nga saag yi réseaux sociaux moom génn man. léegi léegi nag da nga naan Ousmane Sonko ñi ànd ak moom. xoolal Kaliphone xoolal Ousmane Tounkara xoolal Assane Diouf. xoolal Fa no non Kaliphone ànd ak Macky non non Kaliphone ànd ak Macky Sall kañ la ànd ak moom. invité ko kañ la ànd ak moom. non non non non non non. boo xam xoolal ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne tey ñi ngi ci biir parti Pastef identifier seen bopp am ñooñu participer nañ ci élection yi génn dañoo ñëw Sénégal eh, def campagne ñooñu tey ñooy saaga kilifa diine yi koo ci diglu tey ji boo demee diglu paasam dugg ci seen YouTube am lam yàq kilifa diine yow mi ñi ma woo ko wax ci biir réew mi léegi nag ñooñu bu ñu identifier seen bopp bokk ci benn structure bokk ci benn parti politique ñu ne ñoom ñooy yi fi nekk yëpp màbb nañ ko kilifa diine yëpp saaga nañ leen gor yëpp tiital nañ la ba kenn mënatut a wax. xam nga du problème du problème non. ku mel ni euh, lim Basirou Diomaye Faye lim ko bind sa Facebook. Oh, kon nag kon kon bu salee li Basirou Diomaye Faye def man mii defuma ko maa ngi sama kër. yow mii defoo ko yaa ngi dox say activité waxoon na naa waaw ñu bëri gis ko mais gisuñ fi ñu ko yoon wooye gisuñ fi ñu ko dégg. waaw waa accord waaw léegi ndax patience bi ndax patience bi Ablaye Wade amoon bu wut président Macky ci yoon dafa bokk ak Macky Sall patience bi mu war am diggante ba Bassirou Diomaye Faye. yoon moom ay mbiram la. xam nga liy problème bi Bassirou Diomaye Faye li mu bind ñi ma woo ko bind ñëwuma ko bind. est ce du ko mer la di wax. xam nga d' accord mais même boo meree même loo mer mer mer. da ngay am maîtrise du caag ne boo meree rek saaga tojal ay kaas loola neex waxal. est-ce xam ne nit léeg-léeg day waaw déedéet xam nga xam nga yoon moom yoon yoon lu légal la xam xoolut ku mer xoolut ku mer de meral saagal am nga ci droit meral waxal lu bon am nga ci yoon indiwul lool de yoon lim xam mooy lii dañ koy tere. est boo merek boo kontaanee lii dañ la ko tere. xam nga Fadilou Keita ku mel ni moom liñ ko jàppee. waaw dafa bind laaj. est-ce que ne ñii dañ leen. ñooñu dañu wax ne dafa am fu ñu bokkee moo tax ba tey ñu ngi dox wax dëgg ci kaso bi est-ce que loolu demut ba révolte loo askan bi. déggoo li ma la wax sëñ bi képp koo dégg ñun la jàpp nañ ko ci kaso bi rek yow li nga ci dégg rek mooy li nit ñi naan deful dara waaye ñi ko doon entendre ba ci dossier bi nga xam ne moom la procureur yore doo ci fekk mu ko deful dara. koo dégg nag ñu jàpp ko duñ fekk nit mu toog ci biir këram ànd ko njabootam dox ay itam jàpp na dóor ci kaso bi déwuma kaso déwuma kaso yow defuñu lu ñu fa yóbbu. yow léegi kon àtte Ousmane Sonko le diggante le 16 ak le bi moom lan nga cee xaar digg moom Mame Mbaye Niang ci àtte. waaw xam bu dee dossier dossier dossier Adji Sarr Sonko loolu sénégalais yi ñoo bëgg mu leer fukki nit ak ñeent ñoo ci faatu ñu attaqué ci institution yu bari yàq alal yu bari ci biir réew mi ñu bari ñàkk ci seen liggéey dossier boobu wartu niil Macky Sall wartu dem élection te leeralul loolu loolu dafa war a leer bala ñoo dem élection 2024 yi dañoo war xam diggante Adji Sarr ak Sonko lan moo ci nekk. bala ñoo organiser élection non non bala ñoo organiser ay élection fii ci Sénégal non non ma bala ñoo organiser ay élection ci Sénégal dañoo war a leeral diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko lan moo ci lekk ñu teg ko ci bakkan yi tëdd teg ko ci alal ji yàqu ci réew mi. bakkan mu leer du yomb ndax amutoon ay enquête amul autopsie ba tey jii moo tax autopsie bi ñàkk ah, mais mais dafa am cause bu tax bakkan yi wadd fekk ñu leen seen i kër rey leen ay manifestation moo am. léegi cause bi kan la. kan mooy woote kan moo defoon appel. appel à l'insurrection kan moo toogoon ci biir këram cib saalam woote na ko day génn leen. jaay doole. mais même buñ ko bëggee jaay doole. bu ma même buñ ko bëggee jaay doole. yow même buñ la bëggee jaay néewuñ la génnal xaru. Ousmane Sonko dafa xarloo ay doomu jàmbur. ñi dee ñëpp dañoo xaru. non non bien sûr dee ñëpp dañoo. xaru parce que bu la leeree na force de l'ordre yi nga jàkkaarloog ñoom yore arme tiim leen da ngay xaru. xam nga force de l'ordre yi mais lu dégg li ma wax. maintien de l'ordre faire face avec. non xam nga ki nga xam ne dañ na ko yoral sa sécurité bii mu yore fetal gisoo ko mu tiire yoral lu mën a lor te gisoo ko mu lor yow ngay citoyen simple gàddu loolu jàkkaarloog force de l'ordre bëgg ko lor kooku day xaru. Ousmane Sonko loolu muy wax booy ñu ko def barki dem lu mu wax grenade lacrymogène bi ñu ma sànni dafa daw biiram bi la wax waaw li mën a daw biir Ousmane Sonko nga bàyyi ay doomi jàmbur xale yu ndaw nëbbu say doom nëbbu sa njaboot gisoo benn mbokkam bu participer ci élection yi mën a leen génn leen xale yi dee. non non benn non non non non xam nga militant ak mbokk mbokk mooy ki nga bokkal deret militant moom cof lu politique leen boole diggante Adji Sarr tëdd nga maa tëdd woo ñoo ko boole gone yi mais mbokk nag mooy ki nga xam ne sa mbokkam deret la gisagoo benn mbokkam bu participé na man mi maa ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko wala nangam non xam nga xam ah, loxo xam nga nan la a dugal loxom dossier bu toll noonu ak lim ray état da a nga xam nga avant damaa jàpp ne yow damaa jàpp ne yow buñ waxantee nii rek jàkkaaloog sénégalais yi complot wu état xajut ci Ousmane Sonko mënta am doole ji mun mënta am nangam kooku moo la ëpp information kii contrôler sa téléphone bi nga yore xam fan nga nekk xam ci lan nga nekk am capacité mën a def loolu bu la complot doo doy. état jàpp naa ne bu demoon ba complot Ousmane wuyu ma non xam nga état bu demoon bu demee bay complot Ousmane Sonko damaa jàpp ne am na beneen stratégie ba bu ko complot ba di ko fiir ci Adji Sarr mii Ousmane Sonko waral laajum réew moom it ñàkk expérience ñàkk xam boppam ñàkk xam fi ko gën a yi teg ba muy dem ci Adji Sarr ne dafa demoon ngir dàmpalu kinésithérapeute la te leer na la Adji Sarr génn na ne mosut def formation kinés lan moo ko fa yóbbu woon. Ah, mais kon bu mu ne damaa faju ji woon. parce que loolu itam mbirum bopp. waaw d' accord naa xam nga boo nee damaa faju ji jàpp ne ci spécialiste nga dem rek docteur nga dem wala koy faj nangam. est ce que du dañoo déformé kàddu yi daf ne dafa am wax ne dafa am ay neer. ndax day wala mu ah, non non xam nga ki nga xam ne dafa sonn dafa sonn war a def séance de massage ngir coonaam bukkul ak ki ne damaa am ay neer yoo xam ne sama docteur dane boo ko opéré ci danse nga nekk ndax am na ñu ko opéré woon faatu mu ne yaayam da ko ci doon nan nga koy amee ba génn dossier médical wan Sénégalais yi mu ñëpp jàkkaarloo Ousmane Sonko muy wax nga dem jébbal saw yaram Adji Sarr moo xam ne mos def formation. xam a. waaw ah, dégg mais dàmpul nag bëri na ñu koy def si réew mi. appareil bi boo ko tegee ki ko xamul dara mënu ko utiliser ki ci xam dara moo ko mën a utiliser ki ci def formation man boo ko taaloo mënuma Adji Sarr boo tegoon fii matériel bu deful formation mënut a aji nee na deful formation ki deful formation nan nga ko tegale appareil bu mu utilisé. li ñu war a gëmal sénégalais yi mooy Ousmane sonk li ñu déggoon avant demu fa xamul salon de massage complot la ñu dem ba mu leeral ne mun ta ñàkk ne dem naa fa mu gën a teg ak dossier médical am lépp boobu léegi da ngaa dégg fenn fu ñu la fa la Ousmane Sonko dafa faj jee wala feebar bi daa ànd ak coow lu dem. mais médecin ko waroon a def. Ousmane Sonko dafa toll foo xam dafa war a am ay médecins yu koy suivre mais nekk ci aw giraawaale boo xam ne ay doomi aadama faat na. boobu mu moom bëgg leer Mame Mbaye Niang appel. boobu dama bëgg mu leer damaa bëgg appel bi. justice àtte bu leeroon Mame Mbaye du def appel Mame Mbaye mooy borom dossier bi. c'est la première fois ñu koy dégg. Ousmane Sonko lu wax Ousmane Sonko bi mu génne lu wax fukki dërëm du ko jox Mame Mbaye kon àtte bi leerut ndegam kiñ daan moo ne du joxe dara te def na recours moom ne d' ci daan yi ko daan. waaw d' accord xam nga. mbay suuru procès bi mu paree tiwite Sénégal yi remercier ay avocat ko jàppale ba tey mu jàpp ne setal nañ ko. waaw même pas 24 heures mu supprimer ko. ne day def appel moom ak procureur. waaw loolu loolu Bambey la concerné xam nga moom moom dossier am. Hmm. moom moo xam tooñ gën ko tooñ fu mu ko toll. bu fekkee day baal Ousmane Sonko sax. moom mooy responsabilité bu fekkee daf ko topp moo yore responsabilité mais li ma gëm moom yoon dafa war a àtte mu leer ci ñaari dossier yëpp ah ñaari yëpp dañ ko war a àtte mu leer benn Ousmane Sonko du mel ne sëb ci biir cin na réew mi nangam ak nangam maa fi nekk di kenn du ma def dara loolu jàpp naa ne début mission bi xawoon gi mooy cause man loo ma laaj loo ma laaj rek dama ciy wax la cay sama xalaat bi nga ma laajee ci dialogue bi dama ne la d'accord ma ñu dialogue ngir rend Ousmane Sonko loolu d'accord ko ci kenn koy def politique mais it d'accord mu Ousmane Sonko cëpp cëpp ci réew bi jàpp na moo sut ñëpp yoon ko sut. fu mu mën a nekk bu ko yoon soxlaa daa war a ñëw dafa wàcc ci kanamu yoon dafa tëdd sax man naa ne. niñ doone ay citoyen sénégalais yoo xam ne bu ñu yoon wooyee dañuy dem Ousmane Sonko foofa la ne amul benn dayo wala mu am benn fu mu toll foo xam ne dafa tiim yoon yoon ko tiim. bu xamee loolu rek danañ déggoo ci côté boob mais d'accord ma yéen ñu indi dialogue boo xam ne dañu tëju ci ne ngir rendi ko loolu d'accord ma ci mais nag moom it na xam boppam xam fi ay ay privilège am fu mu yam mais lu toll na jàpp ne boo jigee moo tax dañ laa war dara nangama naam bokkut ak Ousmane Sonko kee Sénégalais yi ñoo ko fal mandaam ci la nekk ba nga ne. kon waxtu baa ngi xëcc jëm ci jeex mais dañuy jeexal émission te laaj bii laajuñ la ko gisoon nañ temps nga am problème yoon diggante yow. ak benn responsable politique bu nekk fii bokkee ci Pastef mhm. moo problème bi ba ñu xëy ne kii di Babacar Sarr Pastef dañ koo porte plainte te Moustapha moo ko porte plainte loo xam ne ñu bëri comprendre ñu parce que gis nañu jàpp Babacar ñu jàpp ne dafa bokkoon ci responsable yi jàpp ngir manifestation yi fi amoon après affaire yi daw ñu ne Moustapha moo porte plainte Babacar Sarr loolu moo doon problème bi. xam nga loolu ak tooñ la gu Babacar yëkkati woon jëme ko ci man. ba ma juddoo ba ndëgg ni ci Babacar Sall ma sa porté plainte nit topp procédure bañ dem tribunal bu ma masaan a porté nit plainte ci tooñ gu ma tooñ duñ romb police duñ romb gendarmerie bu nit ñi ne bàyyi rek bàyyi naa ñaari yoon laa ma sa porté plainte nit Babacar Sall ma sa topp procédure am ba ne ak moom tribunal taxaw baar ñu attañu Babacar dafa dugg ci benn groupe WhatsApp bind fa sama turu papa def ay accusation man may doomam ma porté ko plainte ne ko indil ma ci ay preuve parce que kii nga tudd yoonam nekkul ci politique d'ailleurs dundut daaw jéeg la nelaw nga def accusation yi man damaa bëgg xam andil ma ci lu leer lii rek ay problème bi bi mu demee ba xam ne amul benn preuve yoon dafa am ci réew mi ci la ko yoon teg lum ko teg man teguma ko dara ah yoon laa dem ngir mu àtte ma moom rek su ma tooñoon Babacar Sarr moom bu ma demee noonu lañ may def. dama gëm ne waruma fayal sama bopp te du ma delloo saaga. kii yëf yi ñu ngi jàpp yenn responsable politique euh, parce que ñu gis ne arrêté nañ xam nga xam nga bi mu doog a door bi mu door ñu bëri dañoo jàpp non bi mu doog a door ñu bëri. jàpp sax sa jege ñaari nguur gi tax yëf. non non non ñu bëri dañoo jàppoon ne ci affaire manifestation yi la waaye ñi xam Babacar xam li ñu jotale fekk fekk yëf yi seen kanam ci groupe yi amuñu ci woon ay dut ñëw nañ ba ci saal bi toog ñaan njëkk ma leen man Babacar aw ma ak moom problème parce que mosuñoo dem leen te mosuñoo dikk leen du sama xarit sequñu ay wax waxunte wuñ téléphone xuloo wuñ bokkuñu ay pro ay ay ay intérêt man ak moom pourquoi mooy saaga. ngeen dem ci yoon yoon joxe dëgg. yoon joxe dëgg ma dem ñibbi sama yoon. d'accord nga ci li mu def. bien sûr d'accord naa ci lu yoon tracé parce que looloo taxoon ma dem fa su ma ci d'accord wutoon ni maam bay def laay def damay def recours. dafa am laaj boo xam ne daam ko mbëggee suñu naataango moom ku yóbbante ne ma. marché maam Seynabou Ndiaye mhm. dañ koo sanc lu yàggul ginnaaw bañ defee déguerpissement si dëkk bi mhm. am ñu bi commune bi ñoo jël ko ba ñëw sax ñu lay tudd ne da nga waaw am naa fa moom parce que am na ñu naan marché marché non non marché ma marché maam Seynabou Ndiaye sëñ bi dafa jële woon ñu nekkoon ci gaar ba yóbbu leen fa du recensement ba commune na ko def mais dañoo bàyyi délégué de marché baak chef de village yaak yooyu ñoom ñu recensé ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon yóbbu leen fa plus de cent personnes yoo xam ne bi ñu leen recensé jox nañ leen seen i man conseil municipal la waaye commune joxuma man damaa jënd gisoo man dama am kayit yu leer huit huit cantine laa fa am damaa jënd mu am ay kayit yu leer commune du la jox kayit bi damaa jënd ñu defal ma décharge wane ne ñii ñoo témoin dañ maa sañ a jaay ma jënd. ñin may nga xam ne ay ay boroomi kanting lañ woon ñooñu ñoo lott ci seen place yooyu jaay ma yore xaalis sa soxla ko jënd dañuy aaye ko jënd suuf ci dëkk bi ñoom ñoo la jaayaat waaw ñin joxoon nga xam ne recensé nañ leen ban war faa am ñu jox leen ban nga xam ne ñii war nañ fa am mairie reconnaître na war nañ fa am chef de village reconnaître ko délégué de marché ba reconnaître ko ñooñu ñoo mënta tabax place yi jaay ma man parce que ñu bëri dañ ne mbiri waa commune bi ñoo ko. non xam nga xam nga loolu loolu dafa yéen xam nga li tax xam nga non. téeméeri conseil municipal moo nekk ci mairie bi. dafa nga ne téeméeri parcelle laat ka ñi mën naa jël téeméeri parcelle di ko jox ay conseil municipal. am ah, na ko jox ñennam ci biir. non non mais mais bu ko joxee ñennam bu ko joxee ñennam kon kay wax danaan ñennam lañ ko jox bokk mais buñ ne conseil municipal yëpp lañ ko jox mais buñ ne conseil municipal yëpp lañ jox ay terrain yëf yi ñu publier ko tey te mënoo identifier benn conseiller municipal man bi yëf yi amee bu nag damaa toog di observer rek parce que ku sama tur man ne ma jox nañ ma benn terrain da ko génne bala ngaa tëdd ci dëkk bi dafa am yoon du caagi ne da ngay jël ay accusation teg ko ci borom ak njaboot ñëpp di ko dégg. est-ce que mbir yi am communication. pour non xam nga mbir yi am communication mënta weesu am communication mënta weesu commune dafa am commission VAR yi am commission nu mu tuddati euh, commerce am commission euh, comment dirais secteur par secteur. non non waaw ay secteurs yoo xam dañ ko teg c'est-à-dire que ne yooyu bu ñu ñëwee ñoom ñoo yore sañ-sañu def loolu man sañu ko contrôle ndax bokkuma ci commission ya benn commission buy séddale suuf ci dëkk bi bokkuma ci. benn commission bokkuma ci domanial dañ maa jox suuf fu ñu ko teg woon dafa am loo xam nit ñi dañoo war a dégg te bàyyi xel loolu marché maam Seynabou Ndiaye marché boo xam dañ ko tudd wayjuru Cheikh Ibra Fall Latka am na sañ-sañu daggate loolu dafa nga dafa yënuwut sax maanaa Moustapha Messere mu fekk cinquante parcelles yooyu jaay tam am njegam bu kii di leeree rek ma fay. jaayum suuf ayewuñ ko ci dëkk bi n'est-ce dëkk bi nit ñaa ngi jënd suuf di teg di jënd suuf di teg dañ koo soxla ñu jaay leen ko ci anam gu leer ñu mën a jënd man ay kayit yu leer laa yore yoo xam ne dañ maa jaay ma am ay témoins yu leer chef de quartier yi wiise ko ba mu leer ma yëkkat sama xaalis fay fayuma ko sax liquidité ay seg laa ko fay seg yaa ngi nii sama sama téléphone pour wan nit ñi ne leen bu ñu demoon ba mu am jafe-jafe li tax ma photo seg yi bëgg lu leer photo kayit yi bëgg lu leer. commune nag bu lay may dootu defal kayit bi commune bu lay may moom xanaa day sa carte d'identité nangam ak nangam rek may la nga dem mais luñ miite ci ay tur diw ak ni maa ko moom kii mooy témoin ne moo ko moom yow yaay jënd diw mi moo la témoin ci kanamu ay kilifa ñu fay la defal ay kase ak signature sa dama ne woon du ma ci wax ba mu commencé ba nëgg ni maa ngi dégg audio yi fu ne ma nga fay balle mais dama ne woon du ma ci wax fii may waxee yow suba suba ku fa déclaré woon looy jaay damay jënd loolu tax ñu laaj ko pour askan bi nga xam ne ñu ngi dégg te xamuñu pour ñu xam ndax loolu moo tax a jóg. non xam nga loolu certains ay politiciens ñooy def xeexu politique Moustapha Messere ab ab opposant la sonal nañu danañ jël minimum foo information sànni ko kenn ni ko génnal wax ñu génn dal ci kawam yàq ab deram mais man yooyu du sama problème deux mètres ci dëkk bi kenn mësuma ko may kenn ma ko ma samay ci suuf kenn te da ko nanguwaat lu ma fi am rek dama ko jënd. benn kilifa moom ma samay suuf. vingt cinq sur vingt fii da ko nanguwaat man maa ko jaayal bi mu ko nangoo man la wax jaayal ma ko ma jaayal ko. keneen mayu ma deux mètres carrés lu ma am du ma ko jënd. te sama jom a tax ma jënd ko nag. kon waxtu baa nga ci jëm ci jeex. Mhm. waxtaan bi amoon na solo waxtaan nañ ci konk yi bëri. Mhm. Euh, donte que facilité nga ñu mbir mi temps yombul nga nekkoon ci ay yitte ñu dagg ko ñëw pour waxtaan ak askan mhm. boo xam ne jàpp nañ dina jur njëriñ ci askan bi dinañ ci jàngee lu bëri dinañ ci xam jërëjëf maa ngi sant bu baax a baax ci émission bi ndax wax dëgg yàlla déplacé bi ngeen déplacé ba fekk ma ci kër gi lu lu rëy ci man la waaye nag dara sababu ko loolu ñu waxtaan loo xam ne askan wi danañ ci am ak gindeeku surtout fii nga tëjee émission bi muy coowul marché bi dama ne woon sax dama ciy woote conférence de presse pour leeral ndax comme tudd nañ ci sama tur ndax jàpp naa am na audio bu génn boo xam ne ki ciy wax dafa tudd sama tur directement ne mën naa génn leeral ndax naa fa wala awuma fa pour nit ñi xam ne am naa fa am naa fa mais damaa jënd te jàpp naa ne laat ko ma yewut suuf sax am na ay kilifa yu nekk ci biir dëkk bi bañ ca soxlaa dañoo dem ca laat ka ñaan ko may leen am ñoo xam ne duñ ay kilifa ay secteurs nangam lañ nekk dañoo dem mu may leen du jaagi na marché bi nag marchand ambulant ya képp ko moom dafa am ñoo xam ne ci dëkk bi la ñu dëkk di fi ay liggéeykat di ay jàmbaar jiite yeneen secteur ñooñu buñ soxlaa jaar fan war a jaar dañ leen war a may lépp na kay may loola xañ ko benn conseil municipal du yoon conseil municipal ay nit lañ dañoo am am njaboot war a liggéey wala nangam ak nangam la nga xam ne moom nga may ñee ba mu des ñetti téeméeri kanting ak nangam nga recensé ay nit jox leen ko yaa xeeti boo ci jëlee sax cinquante parcelles nag conseil municipal yaa ko may coow warut am waxuma la ak nag ba loola amut kon donc nit ñi foofu laa leen di bàyyi xel ne li nga natt ci sa bopp bu valable boo ko teg ci keneen parce que kooku boromu njaboot la mais def ay accusation direct yoo xam ne marché maam Seynabou Ndiaye sëñ Mountakha dane woon nañ fa yóbbu marché laat ko da ko a mën a nekk nga def ko ngir adversité politique xeexu politique gis nga nit ki mi ngi am jéego yu muy dox nga ne naa ko yàqal image sam wala nangam loolu dafa amul solo li ci ëpp solo daal mooy émission bi ñi ngi ñi ngi koy rafetlu di baal waat àq ñëpp di baal ñëpp àq di ñaan sunu borom mu boole ñu yëggal di ñaan aussi émission bi ak ñi nga xam ne ñoo ko doon def 7TV suñu borom yokk bànqaas yi ba mu dem ci kaw a kaw yaatal barab bi te def jumtukaay yu kawe koy dernière euh, génération bi jërëjëf. jërëjëf sëriñ Moustapha Messere homme politique dëkk fii ci Touba tey moo doon suñu gan ñu doon waxtaanee nag yi nga xam ne mooy actualité réew mi bokk na ci. génn gi nga xam ne génn gis si parti réew mi ngeen ni mu fi leeral ak yeneen yi nga xam ne ay coow la juddu ci marché Mame Seynabou Ndiaye bañ tudd ci turam wax ci yeneen wax lépp leeral na ko kon mbokki internet yi nga xam ne yéen a ngi seetaan fii ci Info7 ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci topp gi ak may nopp bàyyi xel gi waaye di gërëm ki nga xam ne day antoon si liggéey bi muy kii di Alhaji Mor Kane ci réalisation bi Alhaji Mor Diouf ak kii la di Dame Coumba ñoo ci nekkoon di dajee eh, beneen jamono fii ci Info7 TV jërëjëf